ñépp di préparer pour dem Tiwaawan jékki-jékki rek sëñ Babacar ni dareet ci Ndakaar ñëw jël néew bi defar ko ba noppi jullee ko dem suul ko fii ci sëg yi dellu Tiwaawan seetal loolu ñu wax ko mënu du kersa du kers gor yépp suul fii seen doom man sama doom dee fi ma di ko jël di yóbbu Tiwaawan du kersa ah xam naa dinañu wax rek lu tax Ndakaaru ñu denc ko moo ko sàkku woon defar paradis boo xam ni soxnaam jiitu na ko fa ak ñaari doom mu wax ni bu sañoon ñu rob ko ko bu yàlla dogalee ci moom li muy dogal ci ñëpp waaw bu ci kenn muccoon rek yàlla am tuuma waaye kenn du ci mucc du yonent du buur du keneen ba tax na ñu nangul ko borom bi ngir rafetal sunu jàmm wax nañu denc ko foofu waaye bi nu dajee bii ngi dem Abdoul Aziz dafa wax Sëriñ Mbay Si Mansour ni al xalifa ni ko lii la bëggoon waaye yow loo doon mooy am boo nee yóbbu ci awa yóbbu ci awa zakat ñu denc zakat waaw waaye pour jege ñële ak i njaboot gi nekk zakat moo tax ñu ni dinañu nangu pour denc